asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi mbokk yi tey moom internet ji franchement yéen ñiy bëgg a fubal dama leen yërëm yërëm naa leen ko parce que euh, métti na quoi nga yeewu nga xëy loolu kenn ndékkiwul kenn liggéeyul kenn deful dara ku ko gis rek di nga même ñi xamante ne fubal intéressé wu leen sax mais dañu doon déedéet loolu mënut a nekk quoi xam nga donc euh, yéen a ngi gis réseaux sociaux yi sénégalais yi li ngeen di wax maa ngi koy lire mais bon dafa métti parce que bu fekkoon journaliste bu ndaw moo ko bind wala yu demee noonu mën nañ ko bañ a gëm mën nañ ci bañ sa am xel ñaar mais li li ko l'équipe bind la mais man bind ko ay oh my god ak ay foot ñëpp ñëpp ñëpp bind nañ ko ba di xamal ñi xamante ne ay étranger lañ sax ñoo ngi commencé ñëw di massawu Sénégal pays africain di massawu Sénégal xam nga sénégalais yi aussi tamit ñeneen ñu ngi commencé gëm mais ma dama ne attention attention gars nañu xaar waa Bayern la la ñuy wax wala ñu xaar sax Bakary wax ah, waa kii xaar waa Bayern laa doon xaar waa Bayern génn nañu wax waa Bayern ñu wax dafa leer la man pour l'instant nañu ñaan ay ñaan nañu man mënuñu fa dara man waa l'équipe bi ñu ñëwee wax dem na mais attends waa l'équipe ñoom dafa am benn docteur bu dem taxaw foofu wala benn journal bu dem ba taxaw Sadio Mané Sadio Mané naka la wala dafa demee si waa Bayern waa médecin bi taxaw mu taxaw mu ne suma waa ji saa lii moo am bu la neexee nga dem publier demeewul noonu ni mu demee lenn rek la yow gaañu-gaañu bi xamante boo ko amee xama donc en général laa boo ko amee di nga toog trois à si loolu lañ basé pour wax que ne moom bon mënul jouer coupe du monde quoi man loolu laa jàpp mu ngi mel nga am ligament croisé ligament croisé ñëpp xam nañ ne t'as pas besoin sax euh, ñu lay wax dara boo gisee ligament croisé xam ne kii six six mois lay toog kii nag preneur ñu ne kii ah à peu près boo ko kiiyee lii la ñu ñëpp ñëw na à conseil officiel leer na xam nga jotul sax ñuy xaar examen nangam nangam mais waa Bayern Munich li mu wax dafa leer nañ information bi léeg-léeg génn Sadio xam ne ñu wax def na examen moo def examen dafa war a defaat yeneen test jamono bi li ñu leen mën a wax comme information mooy que samedi moom c'est forfait maanaam samedi dañoo war ak Schalke 04 Sadio Mané boobu les match mënu ko jouer léegi nag ñu ñu ne point ñu dem ñu ne ñoom dinañ déggantoog fédération sénégalaise de football ak lépp lu xamante ne xibaar lañ dinañ leen ko jébbal te fédération aussi bu leen ko jébbalee dinañu wax ak ñun te fédération bi tamit sànq génn nañu xam nga ñoom Augustin wax ne ba nii nii du leeruñu waa waa Bayern waaw ñu ñu ñàkk ngeen seen te ak nu mu mënti demee blessé ak ñàkk blessé non seulement dinañ ko mais aussi dinañ ñëw fii Sénégalais yi ah, suñu médecin xool bu baax yaramu Sadio Mané ba xam nax dara dal na ko ou pas mais lu ñu man ñu ñii di xamee ay Sénégalais lañ nañu ñaan bu baax a baax suñu borom.

xam naa ne moom saa yi lenn moom mën nañ ko wax Sadio Mané na laa ko mën a waxee sans Sadio Mané Sénégal sans Sadio Mané comme kanj ni ñu koy waxatee supa kanj bu amul kanj rek du saf dara comme loolu rek sa saa moom muy affaire bi ñun moom bu ñu ci amee yaakaar non ginnaaw suñu borom Sadio Mané lañu yaakaar mu def ay affaire ay exploit ak fi mu nekk jamono bi man ni ma ni muy fubalee Liverpool ni muy fubalee Bayern laa bëgg wax dama naan kii euh, cent pour cent yi mu gën bëgg joxe dëgg-dëgg dam dafa mel ni coupe du monde xaar Sadio ni ma ko gisee nii mais yàlla xam bu bu bu ne lii mooy am rek destin lii sa destin day am parce que Sadio Mané am na préparateur xool na kii li muy lekk da koy xool Sadio du naan sax ay boissons yi Sadio Mané da koy toppatoo bu baax day teel a ñëw entraînement day yéex a ñibbi ba pare boo xamante ne ni ne yow yaay Cristiano Ronaldo mu nga lu tax parce que ne Cristiano Ronaldo ni muy toppatoo ay entraînement fi mu teg football moo tax Abdou Diallo nee na gis joueur maanaam Sadio Mané football mu ko teg mais suñu borom bu ne la lenn lay del lay donc nañu ñaan waa Bayern li ñu wax nii dal na xel pour l'instant contre samedi rek la mënul jouer mais waxaguñu du jouer coupe du monde waa Bayern ñooy information bi gën a leer Bayern moo la ko mën a jox keneen mënu la jox te ak lu su am xam leen ni Aliou Cissé rek kon loolu moom la leer si bopp sénégalais te man gëm naa ko mbokk yi li mu nekkoon bi maa leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV